Sénégal 4 TV yow yakum. ko ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. bu dee gan nga ci kër gi nag bésal bouton abonnement bi teg bul fàttee activé cloche de notification bi de ngir bañ a tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay et maintenant bon visionnage mooy faral di dugg ci youtube bi gis ñii di laal tarix yeneen tarixa jàmbur yi dégg nit ku nekk tarix yëpp ci yàlla la jëm dégg nga muy tiyaan beeg muy murit beeg muy layan beeg muy xaadir beeg ñëpp ci yàlla lañ jëm kon ñun ñëpp benn lañ dégg nga boo toppee ba suñ maam yi suñ maam yi ñoom ñëpp itam benn lañ woon amuñu woon benn xaajalu boo xam ne nekk na seen biir kon Sénégal nañ xam liñ am nañ respecté waliyu yàlla yi nañ respecté sëriñ si man damay faral dugg ci YouTube di seetaan gis ñuy saaga ay sëriñ koo xam ne yow yaa ngi koy saaga xamoo xamoo ban martaba la taxawee koo nit ki mën nga ko saaga mu xalak la te gis nga suñ bàyyi waliw yàlla ñuy saaga képp ku ko ci bàyyi danga torox dara doo ko am dégg nga da nga da da nga nekk ci yoon di tukki def accident dégg nga xasbunallah ni'mal wakiim yal nañu yàlla musal ci loolu yal nañu yàlla musal ci xas waliw yàlla yal nañu yàlla musal ci saaga waliw yàlla kon li ma leen di musanniku waa Sénégal waa bitim réew addina bi nañ moytu yooyu ñu may ñu bay kër kër kilifa diine yi ñu xaslu kër kilifa diine yi ñu saa saagalu kon yooyu nañ ci bàyyi xel yooyu nag bokk na ci kàddu yi nga xamante ne maa ngi koy tëjee incha allahu taala képp koo xamante ne jëflante nga ak ñun incha allahu taala danga gis to da nga xam waxtaane hmm. ah, numéro yi mbokk yi moo affiché wu noonu ci bas écran bi hmm. incha allah rek boo jokkoo ak moom rek ni mu ko waxee hmm. ah, say mbir mën na si naa saafaawu ah, sànq bi ma bëggoon nag mu dugg tuuti rek ci biir néegu sëy ndax itam nag léegi-léegi néegi daal di xaw a yëngu waaye lu jiitu may dugg ci biir néegi jafe-jafe bi nga xam ne jigéen ñi ñoo ko gën a am biir Sénégal ndax li fi nekk ci ay boromi xam-xam di ñaanal soxna yi pour ñu am borom kër kenn xamul luñ toll ñu dem ba ci deux mille vingt ñu ne Sénégal trois millions cinq cent mille jigéen ñu amul jëkkër ñu ngi fi sëñ bi xanaa ñaan daa desee nangu waaw ñaan ñaan mu nangu dafa am ñu ko may mooy li ma la sank li jaaba mooy lépp lamiñ bu lamiñ boo xam ne bar dafa barke lépp loo ñaan ñi nit dañ koy gis mm-hmm. nga li jaaba nag boo ko amee lépp loo ñaanal nga ko nit ki wala wax nga ko sax dafay am mm-hmm. dégg nga li tax nit yi ñaanatuñ léegi ñu gis dégg nga ñaan dafa am yoon ñaan dafa am yoon ñaan yàlla mm-hmm. dafa am yoon dangay ngay lekk lu leew dégg nga lépp loo xamante ne lewut moo ko du sa alal bul ko lekk dégg nga lépp loo xamante ne sa yoon nekku ci bu ci di dugg bu ci di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne min xusni islaamil mari tarku maa la yaani nit doomu aadama lépp loo xamante ne sa yoon nekku ci bu ci dugg beneen bi yow sa bopp yow sëriñ bi na nga sax ci turu yàlla yi di wird di jaamu yàlla dégg nga na nga sax ci turu yàlla yi di jaamu yàlla mm-hmm. fekk yaa ngi sax ci turu yàlla yi di wirde di jaamu yàlla di julli waxtu yi juróom mm-hmm. dégg nga di ñaan yàlla yàlla moo ne aduuni la ko ñaan leen ma ma may leen mm-hmm. yàlla lépp lu mu yore jox na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax na ne allahu muti waan alxaasim yàlla mooy joxe waaye lépp lu yàlla di joxe jox na ma ko man maa koy séddale ci mboolem jaamu yàlla yi deng nga yonent bi teg al ulama warasatul anbiya borom xam-xam ñom ñoma don kon borom xam-xam yi nak suñ ko waxe kep ko xamni nek nga si walam lasrar man nañ la tuddé borom xam-xam deng nga parce que da nga jangi won ñew tok jappalante ak jamm yalla kon yo nit ñi war nañu bayyi lolu ci xel ci lolu bu baaxa baaxa baax serign yalla. nañ ragal yalla di jamm yalla deng nga ku ragal yalla top ay ndigalam ay teram lépp loo xam ne ñaanal nga ko nit ki dana ko gis wallahi azim balaa muy tëdd lépp loo xamante ñaanal nga ko dana ko gis alhamdulilah ñu ngi sant yàlla ba nga xam ne loolu yàlla def na ko ci ñun dégg nga parce que néew loo xam ne dañu tàgg suñu bopp mais ay nit yi alhamdulilah yow mii lu tax nga xañ nga ñëw fi xam nga dégg am na foo jaar ñu wax la doog laa yebal nga doog fay ñëw kon loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax di ko delloo njukkal bi di ko jëloo yàlla macha allah ci kàddu am solo yi mais sang bi mhm. daanaka sax am jëkkër bi li muy bari bari bari bari mhm. yi nga xamante ne ñu ngi koy takk dimanche ak alxamis li muy mhm. tuuti tuuti tuuti tey boo demee tribunal euh, le procureur di xëy di ci ay kayitu divorce moo ëpp foofu la ay papier de mariage euh, sëy gaaw a tas yi tey boo ko doon jàngat loo koy yu gaaw a tas yi sëy itam ñoom jigéen yi dafa am rab boo xam ne daf leen sonal te xamuñ ko gis nga da ngay gis jigéen mu nekk ci néegu séyam dégg nga mën nañ ko mën nañ ko takk tey bés bés ni ki tey mën nañ ko takk tey ñu xëy fase ko dégg nga dafay am rawxaan jigéen dafa am rawxaan boo xam ne dafay nekk ci ñoom yaa ngi dégg rawxaan boobu noonu nag fekk mu ngi ci yow dégg nga képp koo xamante ne may na la guro yaa ngi dégg pare volontaire pour takk la yaakaaram dafay tas ci yow dégg nga loolu raw xaan la boo xam ne dafay nekk ci moom wala bu la takkee yow sa bopp du ngeen yàgg da di bës da ngeen di dégg nga beneen bi ñoom seen bopp dañu am faru rab faru nag boo ko amee da ngay tëdd di mën nga tëdd di muy seeg yow da ngay seeg ñoo xam ne duñ sa jëkkër borom jabar yi sax borom jëkkër yi sax am na ñoo xamante ne ñu ngi am faru dégg nga kon li nga xam ne moom mooy tax suñ duggee seen néegi sëy muy gaaw tas loolu raw xaan la raw boo xam ne dafa nekk ci ñoom dégg nga beneen bi mooy faru rab dégg nga faru rab mom mo len di def lolou da ngay gis ko xamne jigen bo xamne dafa dugg ci néegi seen du ci yag mu tass dégg nga du fa am du fa am du fa am dom sax du fa sax tok tok bu yag mu dal di tass da nga kon loolu tam ñun tam lolou yalla may nañu ci may go xamantene am nañ fi secret bo xamantene mu ngi fi kep ko xamantene ñew nga fi bëgg a jubóog sa jëkër dégg nga wala yow yow ku góor ki ngay am ak sa jabar problème boo ñu boo boo ñu oot boo ñu contacter mm-hmm. incha allahu taala bi iznillahi tabaraka wa taala mm-hmm. danañ taxaw ci loolu danañ saafara sa jàngaro te incha allahu taala boo fi ñëwee mm-hmm. da nga mos te da nga dolli te da ñu boole ak ñeneen ak ñeneen deneen ak ñeneen parce que preuve la liggéey booy liggéey liggéey bi nga xamante ne ci ngay liggéey ci ngay suturoo liggéey boobu dafa war a leer set dégg nga ñun nag alhamdulilah loolu yàlla def na ko ci ñun kon képp ko xam nga am nga problème mu sëy incha allahu taala boo fi ñëwee ñun dinañ dimbalante ak yow dinañ jàppalante ak yow te loolu dafay saafarawu ci kattan yàlla ci lu gaaw macha allah ci leeral yu am solo yi xam naa bii moom ñaari laay boole parce que ñoom ñaar ñoo takkaloo. Mhm. muy léeg-léeg ñu ngi gis ci jigéen yoo xamante ni mënees nañoo sëy ci kër. Mhm. daanaka lu ëpp fukki at. Mhm. te duñu am takkandeer. dafa doom. léeg-léeg itam ñu gis ci beneen étude boo ne nii génn na semaine ba ñu génn. di wax ni yoo xam ne dañuy ëmb waaye bis bu seen doom juddoo. du indiwaale bakkan. nekk benn phénomène bu bari léegi ci réew mi. loolu Aliou am na am na am na séeréer am na séeréer euh, secret bi muy naan faalaali dégg nga faalaali mhm. loolu nekk na feebar yoo xam ne dafay dafay jot jigéen dégg nga ci ñu mu koy jotee muy ji gis nga jigéen boo xam ne mu ngi mu ngi sangu heure timis guddi jigéen boo xam ne mu ngi sangu guddi rek mhm. hmm? loolu baaxut dégg nga sangu guddi baaxut timis heure timis mhm. warta fekk jigéen ci mbedd bi beneen bi jigéen boo xamante ne doo musóoru yow sa bop yow jigen bi do musóoru fu ñu la fekk yaa ngi sa lima sa bop bu nen koku du dula yomb de nga yii limal ni kep ko xamanteni ni bo boo yoy mu ngi ci yow takkandeer do ko gawa am sa néegu sey de nga to bo ci moy waral bo boo même sa bo nare am takkandeer yow sa bop yow jigen bi man nga duggu sa néegu sey me nga bo amee boo amee xale bi man na ñaka barke nga mu juddu mu am bët yi am problème dégg nga wala nopp yi manqué wala tànk yi mu lafañ wala loxo bi dégg nga loxo bi loxo bi itam am problème dégg nga yooyu mooy faral yàlla di def ci ñoom sikk boobu noonu dégg nga ak seen néegi sëy ni ñuy sëy ak seen jëkkër yi dégg nga yooyu moom mooy waral yooyu yooyu nag fekk yaa ngi ci yooyu noonu yooyu fekk yaa ngi ci yi ma la wax ni fekk yaa ngi ci takkandeer doo ko am mën nga sëy sa néegu jëkkër boo sonn doo ko am dégg nga mais nag ci loolu itam am nañ fi càngat boo xam ne bind yoo xam ne incha allahu taala boo ñëwee ci xàmbu yi bañ jox la ko ba nga jëfandikoo ko lii nga takk ko bii nga naan ko boo koy naan dana téye mbërëng bi booy sëy day dana ëmb te dana am doom dana mucc ci jàmm du am benn kalankoor te hôpital sa du fa àgg lii ñun ñoo la ko garanti bu fi ñëwee mhm. hôpital ba sax du fa dem ci biir këram lay amee doom lii ñun ñoo la ko garanti macha allah ci kàddu yi am solo waaye defe naa ne ñemewumaa jeexal ci biir néegu sëy mm. te di laal li nga la ci mm. boo xam ne bu njëkk ñun dañ daan toog rek di ko dégg mm-hmm. ñu naan bitim réew la xewee mm-hmm. tubaab yi léegi seen góor ñi nekkatuñu ay góor mm-hmm. ñu jékki-jékki loola leen daloon daal dugg ci réew mi waaye ñu ko daan séntu rek ci mag ñi di wax naan góor ñi nga xam dañoo am ay soixante-dix ans quatre-vingts ans ñu dootuñu nekk góor mais léegi damay dégg xale bu góor bu am vingt-cinq ans sax néew kattan. Mhm. waaw néew kattan nag néew kattan itam yàlla am na lum ci may bu baax. Mhm. dégg nga néew kattan am na loo xam ne moo koy faral jamono ji mhm. ndaw ñi am na ñoo xamante ne takkatuñ dañuy fo da nga foo bu bëri baaxut xanaa moo foo bu bari dafay tax ëllëg yow boo amee jabar. dégg nga parce que parce que mbiru am doom maniw la dégg nga fekkante ne seen maniw yi dégg nga fekkante ne seen maniw juboo nañ koku jigen bo boo ak moom da nga am ak moom dom mhm. fekante na nak yow da nga don tiaxan ci tiaxan nga nekkon di tiaxan rek mhm. koku nonu da ngay am problème sey de nga yow ku gor ki de nga new kattan itam amna na xamantene daf koy waral Moy gannaaw modou modou yi nga xamantene nek nañ bitim rew moy mhm. nees bi nees bi dafa nek lo xamne lu leen di sonal la de nga nees bi nak am nees bi amna sunguf yo xamne day jëflante ak mom de nga amna sunguf yo xamne fekkante ne yow ku gor ki mënoo jógal da nga da ngay am problème mu jógal mhm. sunguf boobu am nañ ko mu ngi fi da nga fekkante ne yow yow ku góor ki booy séeg sa jabar doo yëg sa bopp sunguf boobu am nañ ko mu mhm. nga fekkante ne yow ku góor ki booy séeg sa jabar da ngay gaaw a daanu mhm. sekker boobu yàlla may nañu ko mu ngi fi te dana te dina am lu ma te am lu ma la ci jote woon gis nga ren bii nii ren bii ngay gis nii képp koo xamante ne yow sa bop néew nga hmm reen bi amna lo xamne suma ko ci defé ba nga nan ko da nga am katan go xamne toso to so sek sa jabar sa jabar dana yemu ci yow da ah dana yemu ci yow trop trop trop sax ah sa jabar dana yemu ci yow trop reen bi kon nek na reen bo xamantene lu am solo la kon yen ñi nga xamantene ne ngeen katan inshallah taala bismillah kopi koma kuma ci contacter danañ la ci jappalé te buñ defee da nga gis preuve néew kattan moom semaine semaine semaine laa koy traité semaine. semaine laa la may laa koy traité. incha allahu taala. suñu déggee nga xamante ne nii. dañuy ay produits boo toogee ñaar wala ñetti fan mhm. koy dama koy saafara ci kattan yàlla laa la wax. Mhm. dama koy saafara mu wër. da nga mu wër. yaa ngi dégg parce que am na am na am na ñaan parce que am na ñoo xam ne di ñàkk ñoo xam ne dañ lay defal mbiru ay traitement la xataa hôpital ba sax boo fa demee am na yoo xam ne ay traitement dañuy def traitement traitement lay doon yaa ngi dégg mais li ma la mën a foofu pour new kattan bi yaa ngi dégg man dama koy saafaral ci kattan yàlla dootu ñëwati ba abadan ba ilaa yow mi diin dégg nga parce que ñaan la secret bi sama maam moom sama maam ñëpp xam nañ ko addina bi addina bi fii ah waxuma ne amul ñu ko xamul de mais ñëpp xamoon nañ ko ci ñaan dégg nga sama maam yii nii yëpp moo ma ko jox walla mbiru alxuraan nag loolu dama koo jàng damaa dem ba dëkk yi fasante ko dem jàng ko foofu mbiru reen sunguf ah waxuma ne aw ma ku ma ko gën a xam de waaye alhamdulilah yàlla def na ci ñun loo xamante ne xam nañ ci loo xamante ne ah waxuma ne kenn xamu ko de waaye xam nañ ci loo xamante ne daal lu am doole la dégg nga lu am doole la kon mbiru néegu sëy dañ koy saafara te il ba ilaa yow di din dootul ñëw bu ñu defee li ñuy def ba pare jeex na dootul ñëw bu ñëwee rek oo ma téléphone ne ma sëñ bi li ma woon dara amu ci te man ay preuve la am preuve yaa ngi fi yaa ngi di la ñaanal naan la ay preuve laa lay wan defe naa ni yombut a gis du ñun nag gis nañu ko tey ci ki nga xamante ne moo di Serigne Sidi Habib bi ñu gën koo xam nag ci borom lijaaba nekk fii ci diwaanu Malika tribune su 75 bi boo fa egsee rek incha allahu rabbi danañ law tegtal ba nga agsi ci biir kër bi sang boobu mel ni fii toll nit ñu cërale woon ci waxtu daal di lay buur xanaa ñu bàyyil rek ak kàddu général di tàggatoo ak internet waaw li may tëjee li may tàggatoo mooy ñu ngi lay gërëm di la sant yow mi nga xamante ne yow yaa sakku teewaay bi ak interview bi ñu ngi lay gërëm di nuyu nuyuwaat mboolem waa umal islamique di nuyu waa bitim réew di wax ne ñu ngi waajal xew-xew bu mag mooy màggal Tuuba ak mawlid juddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg nga nga xam ne am na boroom xam-xam bu waxoon ne ci juddu yonent bi weer boobu tabibi xaribul hal shiqaami ya tasmau yuqaabilu ni xafal mu mushaffaw dégg nga borom xam bu mag koo xam ne Sénégal ñëpp xam nañ ko bitim réew ñëpp xam nañ ko mu ne weeru weeru sama sama sama docteur bi jege si na dégg nga mu ne maanaam bu feebaroon moom moom moom yàlla boobu noonu mu bu feebaroon waliw yàlla bi nag duñ tudd turam waaye ñëpp xam nañ ko moom mooy saaxibul waxt dégg waliw yàlla boobu noonu wax na ne maanaam weeru yonent bi bu jegesee da nga docteuram bi jegesi na mooy loo mooy moom moom nga xam ne bu feebaroon weer boobu noonu moom mooy nekk li nga xamante moom mooy saafar jàngaroon da nga kon weer boobu ñu ngi koy jublu maa ngi ñaax ñëpp ñu jublu ko màggal Tuubaa itam ñu ngi koy jublu maa ngi ñaanal képp koo xamante ne yaa ngi dem yàlla teg la ci roonu yoonu siraatikal mustaqim yàlla yóbbu leen ci jàmm indi leen ci jàmm beneen bi moom mooy li may tëjee mooy jamono ji nak, man demay faral ci dugg ci YouTube parce que man man mbiri sa affaire yu affaire yu ay ay media sax mhm. man yoy bëgguma di ci wax deng nga mhm. parce que sama mam def ñu waxoon mhm. na ngeen tok ci dekk bi lepp kep ko xamantene soxna la len dina ñew ci dekk bi fekk ci len yaay ngi gannaaw gi nak démé ba nit ñi sonal ma sama mam ci la ma may ndigal parce que man lepp lu may def ndigal la sama mam ci la ma may ndigal ne ma demal deng nga demal jox ndigal demal fépp fu ñu la invité mën nga toog nga wax dégg nga gannaaw gi loolu moo tax man sama bopp ma ñëw di wax ci média yeeg yooyu yaa ngi dégg kon nag loolu nekk na loo xamante ne luñ ci war luñ war a bàyyi xel la leneen li moom mooy ñi nga xam ni ñu ngi xaslu kilifa diine yi nañ moytu seen bopp